métti métti yoo xam ne euh, gis naa léegi sax ci internet bi ne pour dëkk bi dañu ñëwaat léegi hmm. ne ñoom dañu obligé sax euh, exode carrément dem ci beneen dëkk c'est-à-dire tout un village dafa dafa dafa dafa bàyyi euh, dëkk bi dem ci beneen dëkk boo xam ne foofu woowu na hmm. donc muy loo xam ne sañu ma ne c'est au Sénégal waaye en tout cas de manière contemporaine ñu ngi koy doon gis mu toll noonu hmm. te on a comme l'impression que euh, sénégalais yi dafa mel ne jëluñu la juste mesure euh, de ce sinistre là contrairement ak inondation euh, pluviale yi ñu dégg ci ay banlieue yooyu nga xam ñëpp dañu doon dëkk ñi def ay téléthon ak yoy mais yii da gisoo sax mu def une yi euh moo aussi bien presse papier que la la la presse audiovisuelle pas une réaction ci loolu waaw di commencé di leen di leen di leen masaw nag vraiment. Mhm. parce que ni ma gisee muy demee nii xam naa ni ñi jóge fi tooy dem foofu bu moytuwul tooyaay bi leen fekk foofu fi buñ ci jógut. donc di woon ni ndox mi ngi def ravage par la même occasion ma fàttaliku ko ni inondation am na foofu waaye tey gis naa ci boobi mhm. bateau bu fa suux lu mu mës a gis. bato buy suux ñu koy xool ba mu jeex. Mhm. tey laa koy soog a gis bateau mel Titanic. Titanic moom day suux. ba ci dernière partie bato bi mm. bii tamit loolu laa gis tey donc xaw ma nag yi mais muy lu ma lu ma jaaxal waaye pour ñëw ci inondation yi rek wax nga léegi nii li nga li la jaaxal mooy mm. peut-être dafa mel lu kenn yëgul wala dara euh, opposition yi dafa xaw a wuti tuuti muy man di keneen ñun ñu nekk ci yëpp am na taxawaay bu ñu taxaw boo xam ne su crois que war nañ koo yokk mm. parce que jàpp naa ne bu fekkoon jamono bi Ousmane Sonko mooy so mooy opposé wu tey mi ngi ci foofu ak ay bor c'est important nu en tant que opposant parce que yenn sax nga bëgg a lu nguur gis ay fay wala lu mu war def defu ko mhm. nga taxaw ci digg ba mhm. daf may fatali ben séquence su sila bu ma defoon ay ré mhm. ndax ni campagne génn ben expression weddi gis bokku ci inondation yi am fii Thiawé bo abla defagul jaxay tala sila jël wal fajiri di def émission dem ba ci ndox mu toog ci ne weddi gis bokku ci <laughs> fa la donc loolu ko comprendre di nga xam ne ñun lay ñun lay ñun lay mbalak mhm. waaye ñun la weddi gis bokku ci mooy boobu ñu ngi naan génne nit fi ñu mu ñëw ba ci di ndox mi mu toog donc loolu lay wax ne bu fekkoon ne Ousmane Sonko mooy opposé wu mhm. ma nga ci digg ndox ma mhm. ba ñëpp xam ni dem na fa lii moo fa xam ñun nag xaw na manqué aussi loolu tamit c'est vraiment ah, opposition bi war na mën a taxaw taxaw gis naa ñuy bind nag ay lettre di mas mas dem fa wane ne xamal Sénégal yi lii moo fi ne bu fekkee ni nguur gi fi ne dafa am nu mu war a taxawee ñu fàttali ko ko bu fekkee ne dafa am faay bu mu am ñu fàttali ko lii nga war a def loolu buñ ci toppoon dina dina dina gën a am am am trop mais teewul nag may ñaan ñun ñëpp ñu ñëwee ci classe politique bi yëpp loolu naqar la ñu bañ ko politique yi aussi euh, nan wax ak dëgg la pouvoir mu xam naka lay def pour dimbali ñooñu parce que ñu ngi ci école boobu bi ku inondation daal jàng mënatul am mais bu ma waxul waxul jàng sax ku tooy doo taal Mm-hmm. ndax fooy taale nga dul am mm-hmm. donc ñooñu war na leen a jàppale ñeneen ci ay ay ay ay euh, union alimentaire bi ak yeneen yi nga xam ni que maa ngi ñaan sénégalais yëpp bu ñu di jógee les bonnes yi mm-hmm. ba ci yéen mën nga ko commencé sax fii ñu fexe nu nunu dajalee lu ci mel ni ay ay ay fàggukaay ay yére ak yu demee noonu yóbbul ko xale ak ña dëkk parce que d'habitude fu ñu fu loolu daal du bàyyi dara euh, fii ci wàllo rek am na fu ci dex gi rëcc maa ngi dégg benn waaye bu ni ginaar yi yëpp donc yooyu dafa jar bàyyi xel donc amatul yëre amatul dara ñu fexe nun leen dimbalee nguur gi tegu ci ñu ñu leen daal parce que ci Sénégal lan bokk te it yéen journalistes yi ngeen fay bari tànk di ñu xamal exactement lan moo xew donc nekk ci dëkk gaafu mel ni am fa ñu ko yëg bariwul vraiment lu lu déplorable la. d'accord euh,